ngi ci guddi tey gi euh, monsieur Fofana dañuy dañuy dellu si tuuti ci démb rek euh, am nga ki nga doon tey ñëpp di la bàyyi xel ci sa taxawaay ci réew mi waaye mel na ni am na fu mbir yi tàmbale donc tey lan nga ñu mën a baaxee ci sa jëmm ji euh, fan la mbir yi tàmbale. ah wax sa bopp de lu jafe la. Mhm. naan wolof la naan saabu mënul fóot boppam. Mhm. donc wax ci suma jaar-jaar dina xaw a compliqué mais fi ma koy dooree rek mooy. Euh, mais balaa loolu euh, ma nuyoo parce que jotuma woon a nuyoo sànq. Mhm. surtout remercier waa Bawol en fait. pour ah, waa Bawol nga nuyoogul woon quoi mais nuyoogul waa laa nuyoogul ah. euh, nuyu leen ba noppi gërëm leen. Mhm. ndax ñeent fukki fan ci ginnaaw suma papa dafa la ñu taxawu ko nag taxaw bu am solo. ci wàllu dëgg yàlla. et suma papa nag dafa nekkoon conseiller municipal nekkoon enseignant surveillant général de lycée doon politique. ban ban zone ci bawoon Diourbel Diourbel vraiment Diourbel commune. au cœur du Bawol au cœur du Bawol. ok Pori Escale. donc HLM Grand Diourbel Thierno Kandji vraiment est le cœur du Bawol. donc mu nekk koo xam ne maag moom on très très proche mën naa ne de ses enfants man maa jël côté politique donc tey opportunité ngeen ma may. pour ma remercier waa Bawol ci taxaw bi ñu ko taxaw gunge bi ñu ko gunge ak ñaan yi ñu ko ñaanal. Mm-hmm. maa ngi leen ci gërëm ndax wéyjur bu dëddoo moom ay ñaan rek fi des. Mm-hmm. jërëjëf donc ku la jàppale si loolu moom amoo amoo amoo donc pour tontu salaat yaa Moussa euh, noorte gi njaareem la doomi njaareem doomi Bawol. doomi Bawol falaa juddoo falaa yaroo falaa màggee falaa amee lépp. falaa defee suma école primaire école Algor Dioum di nuyu suma enseignants yëpp ñoom monsieur Anne toutes ces personnes qui ont contribué à ce que je suis devenu euh, jaar CNT gars yi dinañ xam <laughs> collège bi may wax euh, jaar lycée am suma bac euh, donc euh, voilà jaar-jaar bi loolu la ay parents yoo xam ne mën naa ne lépp ñoom la parce que il m'ont toujours appris que ñaari mbir moo gën a am solo ci àdduna et jusqu'à maintenant si si j'ai des force c'est ça mooy jàng ak nangu sonn waaw dañ ma mësa wax wan ne àdduna soo nangoo jàng ba noppi boo ñemee sonn di nga mën a suturlu sa àdduna donc ça c'est deux valeurs yoo xam ne def naa vingt ans à l'extérieur du pays ñaari valeurs yooyu ñëw mës a accompagner. xam naa ku teel a jàng kunkaati mën nga yow. waaw absolument ñun nag waaw que Bawol moom ah, ah, bi nga waxee ñaari valeur yi rek soriwul kër gu mag sama xel dem ci sama xel dem ci kun katima waaw <laughs> ci sëñ Saliou moo ñëw mës man bi may am bag mu leer ma ne xamoon naa ne damay dem parce que bokkoon naa ci ñi nga xam ne maa ngi doon góorgóorlu <laughs> dernière fois bi ma ñëw Touba et dañ ko amoon habitude ñëw Touba tout le temps ci année bi def ay voyage d'excursion ñëw Touba donc dernière année bi sëñ Saliou ñaanal ñu boobu lañ dem boobu lañ ko mujj gis mais pour dire que ne vraiment euh, bawol lañ juddoo man moom mën naa ne jusqu'à mes vingt ans mosuma génn Diourbel hmm. bac moom a génn Ndiarème donc c'est hmm. vraiment un pur produit du Bawol. enfance boobu noo ko passé entre waajur yi parce que évoqué nga leen. te hmm. léppi ndaw dafay tàmbale ci biir kër gi. ci biir kër gi waaw. Ah. Euh, comment était décrit monsieur Fofana euh, ci. di di dama juddu gis vraiment pas bi nekk un homme public di ko xool. di jàng ci moom mais j'étais très proche de ma mère parce que yaayam la ma papaam la ma tuddee. maanaam paa bi sa papa yi jur bu jigéen ma tuddee. ok ok grand père maternel. Mhm. donc Bala Moussa Konaré euh, donc moom la ma tuddee. macha donc très proche de la maman euh, tout le temps di ko dimbale man nag dama naan liggéey liggéeyu kër ah. mhm. dama ko doon def des fois su amul woon bon maa daan fóot. Mhm. donc c'est quelque chose aussi que je dis aux jeunes. bu leen am complexe mukk vraiment être proche de vos mères parce que ça vous donne benn benn benn force benn lien bu mhm. particulier te ñaanu yaay ci doom bal la mhm. donc plus ngay proche sa yaay plus mu di la jege sa gàllaaj lay lay doon donc très proche de ma mère euh, sama yaay aussi nag même sama jàng ah c'est elle comment man bi may dugg entraînement bi may dugg école je savais déjà lire et écrire cest dire que bi école bi mu xamee ne année prochaine lay dugg dafa jël livre Mamadou et Binta livre bu vert bi mm-hmm. moo ma doon jàngal kër ga xale yi xamuñu livre boobu de mm-hmm. donc moom habitude bi mu am mooy bëggantewul bu xamee ne année prochaine dangay ngay def classe mm-hmm. vacances yi lay jël livre calcul ak livre lecture di la loo ci kër gi léegi man dama am habitude su ma toogee classe je me rappelle li may def en train su prof bi bindaan calcul bu ñu war a def man damay génne suma cahier de vacances jox ko ko mu defal ma 10 sur 10 ma toog après jël sama livre di lii loolu du sama njàmbaar man c'est que elle m'a inculqué cette culture boobu di il faut te préparer il faut être prêt il faut prendre de l'avance te loolu bi ma xamee njëriñ li mooy bi ma demee France dem France aw ma bourse aw ma dara il fallait que ma liggéey ci ay restaurant pour mën a fay samay études plonge lu ne def naa ko plonge naa def naa def lu def naa pendant six ans dama liggéey pour fay suma jàng moo tax ma ne la sànq nangoo jàng nangoo sonn ñaari valeurs yooyu daf ma topp parce que dama nekkoon di jàng j'étais obligé man may def minimum quatre à cinq heures de travail manuel par jour plus ma war a dem université léegi yow boo amul mental ne nga xam ne yaa tubaab yi bokku leen nga xam sa bopp. xam ne yéen ñaar bokku leen ñoom bu ñuy tëdd nelaw ba ay huit heures trente ñu door a ñëw classe yow yaa ngi jóg cinq heures du matin jël bus bi dem liggéey ji au début benn entrepôt la liggéey ensuite ma liggéey restaurant mais pour te soo calculer say vingt quatre heures yow am na quatre heures de temps yoo xam ne physiquement tu te donnes pour am salaire dans trent jours après nga ñëw classe war a def suivre cours bi le soir yaa ngi sonn foog nga teel tëdd parce que da ngay teel a donc lim la indi ci yow mooy dafa defoon ci man le fait que xam naa ne man awma temps fo mhm. temps bi ma mën a sacrifier parce que mënumaa bañ nalaw ñëppay nalaw temps à perdre amoo ko il faut ma dem classe comme ñëpp mhm. mais foog ma dem liggéey te ñoom duñu liggéey mhm. donc moom su ma amee temps rek foog ma dem BU ubbi samay livre jàng loolu defoon ci man cette préparation comme dañ ma dañ ma jàgg yàgg ci prépare jëlal say livre ngay jàng di préparer wu donc loolu la defoon ci moo tax suma étude yëpp en France j'ai pu def naa ba ni may amee suma euh, suma master à mu suma raté une année parce que je ma disais mënu ma mënu man di di liggéey pendant douze mois pour jàll benn année di ko raté mhm. parce que man quand je rate une année mhm. ça veut dire que je ne reprends pas uniquement l'année mais je reprends encore une année de travail yoo xam ne mhm. il faut ma defaat ko donc man j'avais pas le choix donc loolu pour sama sama jeunesse man li ma si li ñu ma jàngal inculqué euh, aw ma woon temps dem ay fo ñun on était tout le temps en famille on jouait entre frères toujours à la maison mm. on sortait très peu daawuñ génn am na suma benn xarit journaliste Mame Birame Wathie ñoo màggandoo nekk mën naa ne ñoo bokkandoo collège lycée mm. c'est-à-dire que bu dul lycée du ñu gisante en dehors pour vous dire que ñun noonu la ñu màggee. quelles étaient quelles étaient vos relations ki nga tudd léegi muy Mame Birame Wathie di suñu naataango taskatu xibaar. alors ñoo màggandoo cest dire que ñoo bokkandoo collège ba lycée donc on a presque tout fait ensemble li li jeune li def yëpp on l'a fait ensemble donc euh, foofu laa yem. <laughs> on a <laughs> tout fait ensemble. On avait un groupe. Euh. Et j'en profite pour saluer mes, mes, mes, amis que je, que je fréquente toujours. Parce que Aduna Mom, Aduna tes, tes, tes amis d'hier sont tes vrais, vrais amis. Mm -hmm. Donc j'en profite pour saluer Nyom Bahoum. Était-il un homme dur Mané. Mambiram. Mambiram. À son enfance. Il était très compliqué. Ah, c'était déjà un leader né. Hein. Ça se voyait que c'était Nid Kohamne. gëm-gëm am valeur am. du ko du ko du ko bàyyi. aujourd'hui il le montre ñun ñi màgg ak moom ça ne nous étonne pas. yéen a daan ànd sàcc mango sàcc mandarin. cotisé bal 31. waaw surtout côté boobu. tuddalee sànni ko xale yi si classe bi. am na anecdote am na anecdote doxal benn booy mu bañ ngeen dóor ko. non. gentleman la ñoom. ñoom lettre lañ doon bind je t'aime comme comme le poisson aime l'eau de la mer. <laughs> ndax am na anecdote moo ñu mën a nettali. anecdote entre vous. entre ñuul mhm. y na a beaucoup. bu la gën a marqué peut am na yoo xam ne mënoo ko wax télé bi parce que. <laughs> non y a beaucoup parce que ñun chance bi ñu am mooy Diourbel xam nga Diourbel on est c'est free quoi c'est pas mhm. comme Dakar ou c'est mhm. serré affaire Diourbel dañ doon. on avait beaucoup de choses à faire. Foofee Njaareem tout le temps ensemble ah. waaw Foofee Njaareem. Foofee donc on avait on avait li may rappelé wu rek mooy bi ñuy def terminal on était un groupe de seize. li mhm. li plus bizarre mooy seize yi doon ànd pendant trois quatre cinq ans ba dañu amee ba bu kenn bokkut ak sama classe. Oh. man ba léegi mënuma la wax ñun nan lañu def ba retrouver wu ensemble. Mm. et puis ñu dem récupérer club yëpp ak foyer yëpp donc man am naa ñett titre yu bokkul donc même groupe bi ah moo jël daanaka club yëpp. donc te jël lycée bi daal poñe lycée bi. téye ko loolu daal xam naa da ngeen teel a wane seen leadership. teel a nekk au devant teel a nekk au devant. Mm-hmm. Oh, dem def jumelage ak waa Mbour lycée Demba Diop bu Mbour. macha allah yaana euh, ñoom kilifa. Mm-hmm. kilifa kilifa euh, rappeur ñoom Thiat ak PBS ak Ouza ñoo leen njëkk andi Diourbel. Mm-hmm. d'accord waaw dañu dañu amoon vraiment esprit et puis c'était vraiment un groupe soudé. Euh, on on était tout le temps ensemble baccalauréat moo ñu séparé. ensuite ñiy tukki mais jusqu'à maintenant on est on est on est on est resté très liés. Mm-hmm. donc j'ai vraiment eu une jeunesse que je ne regrette pas du tout à Diourbel. Mm-hmm. et dañu amoon ay professeurs yoo xam ne et puis li ci li baaxoon mooy autant on était bon on vivait notre jeunesse mais autant on travaillait beaucoup. ñëpp vraiment ay liggéeykat lañu woon ay jàngkat lañu woon moo tax les profs aimaient nous mettre en valeur en même temps. Mm-hmm. donc euh, donc euh, donc voilà mais c'était vraiment le bon temps ñoom Sadio Deme Ablaye Djigo. Euh, des gens que je Pape Abdou Mané. Euh, euh, voilà am na am na am na benn internet am di Fall ñu ngi koy nuyu. nee na ma naa la laaj ndax xam nga Pataala Joxaane ci Diourbel. xam naa bu baax a baax. <laughs> kuy kooku. ah non c'était c'est un vieux qui nous a beaucoup marqué qui a beaucoup fait pour nous nit ku baax la Diourbel nag c'était ça sa force am na mag ñoo xam ne vraiment fu ñu fekk wax ñu. vraiment taxawaay bi ñu war a am te Diourbel dafa tuuti donc looy def da doon jàmm parce que say waajur dañ koy yëg looy def na doon jàmm ok ñu ñu ñu ñu jeexalee say waajur nga mun nuyu waa Diourbel rek balaa ngay jaaree xam nga bu ñu tuddee waa Diourbel foofu mun nuyu leen man it ok bismillah sama sama sama gars yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp famille Abdou Lahad Wane laa njëkki Ibou Wane ak Nourou Wane maa ngi leen di nuyu bu baax Euh, maa ngi nuyu ñoom ñoom Selle euh, maa ngi nuyu Petit ak Galle euh, nuyu waale aussi Sarba Jaamaan waa Express yëpp maa ngi leen nuyu donc Express d'alors ak Express bu bees bi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu sama gars yi yéen ñëpp maa ngi leen di kontaane doomi Jurbel yi maa ngi leen nuyu yéen ñëpp sama gars yi waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di kontaan ah bi muy wax léegi sama xel dem na théâtre verdure dem na fu ne fu ne ñu continuer ok ñu ngi lay Jurbel neex na de ñu ngi lay ñu ñu ngi lay ñu ngi lay jàllewaat. c'est pas mu nekk jaar yëm. <laughs> waaw jaar yëm Mara lay nuyu. maa ngi lay nuyu Mara am na solo na solo ñu ngi lay ñu ngi koy jàllewaat euh, wéy juróom bu góor <coughs> na yàlla yërëm ko tas ñu ci euh, ci barkeem mel na ni duñ ci xuus mm-hmm. côté émotion bi mais Euh, aspect politique bi nga tudd ci sa wéjur nga ne mel na ni euh, aspect politique bi tey bi ngay dund am na lu mu la inculque ci wàllu valeur yooyu noonu tey loolu mën a baaxee ci anecdote laata ñuy génn wàllu woowu rek ci sa wéjur wu góor parle parlait beaucoup donc bokk na ci bu ma amee vraiment expérience ci politique moom on discutait beaucoup et puis daf ma doon wax li mu dund ci politique li mu doon dund yëpp te bañ. bañoon il était du pouvoir wala de l'opposition votre papa à l'époque benn moment il était socialiste. mais nag moom il n'a jamais voulu accepter des postes au niveau des ministères parce qu'il voulait être très proche de sa mère qui était de Diourbel donc moom politique municipale rek la musa la musa yem donc il était très proche des populations donc ci moom nag laa jàngee lu bari ci politique soxor gi ci nekk iñaan gi ci nekk adversité bi ci nekk Euh, ci moom laa xamee lu bëri ba mu jigee da ngay xam quand entre en politique xam nga fi ngay teg sa tànk euh, musuma nag nangu def dara te aussi aw ma ci ndigalam je me rappelle bi ma nekkee Canada euh, Cheikh Pamba Dieye woo ma ne ma dama bëgg nga ñëw nekk conseil technique du gouvernement pour gérer cabinet décentralisation dama tàgg suma waajur fekk avant boobu maa ngi doon bëgg a ñëw campagne mu ne ma campagne moom dama la koy tere bugguma nga ñëw fi campagne ma respecté li mu bëgg boobu kilifa laa yor naa sama njaboot mais euh, bàyyi moom mm-hmm. du bàyyi waaw la sant mais bi ma ko tàggoo ne ko nag ah dañ ma proposé post daf ma wax wax joo xam ne après moom mooy li am parce que daf ne ma yaa ngi dugg ci lu compliqué mais nag comme tu es opportunité boobu dina tax nga jàng lu bëri mais benn condition laa lay tegal su dee mën nga ñëw pendant une année te pendant un an boobu doo soxla dërëmu kenn ñëwal soo ko mënul bul ñëw gis nga loolu moo wax mm-hmm. moo résumé ni ma fi dundee 2012 ma ñëw nekk conseil technique du gouvernement et puis ça m'a permis d'apprendre énormément mais lam waxoon moo am parce que au bout de dix mois man maa takk sumay bagage mm-hmm. ne ñii gëmuñu xam-xam bëgguñu liggéey ay pexe rek lañ fi nekk. Mhm. man maa nar jël sama temps chaque jour ma génn note technique génn rapport génne orientation. suñ ne gauche ba ñëpp technique yëpp ne gauche. ñu ñëw jaar droit. te li gën a incroyable mooy <laughs> toog naa fi neuf mois musuma laal salaire c'est-à-dire que pour ñu pour nga jëlee la Canada ak si la defal la sa salaire conseil technique sax nga jàpp ci di sutur la budul woon la ma daan liggéeyee di ko téye. nga xam ne sama waxu jur ba ñëw na dafa ne ma woon boo fi toog un an te soxla woo dërëmu kenn moo ñëwaat <coughs> pour rek wax leen kàddu wayjur wu góor ni mu ni mu amee doole ci di la préparer ci loo xam ne yow yow xalaatoo sax ne nii lay demee c'est au de man bi ma teggee sama bagage dellu Canada ci laa door a jot sax su may salaire pour pour vous expliquer comment fonctionne l'État liggéey nga dix mois ci état liggéey naa dix mois dix mois rappelé wu ñu sax li si rappel bi ñëw na après mais c'est pour te dire que pendant neuf mois mais li ci am solo rek mooy wax jam ma waxoon ba ma koy wax pour man xaw ma sax lu tax mu di ko wax mais dafa ñëw doon li nga xam ne moo am pendant neuf mois ma ne ci dëkk bi di xëy di liggéey di nekk ci dossier yi di kërti kërti lu ne di ko gëstu mais boo ne gauche gouvernement bi ne droite ak droit de la décentralisation yooyu yëpp liggéey yooyu yëpp ngeen liggéey ko teg mais dañ leen di wax gauche ñu jaar donc man su ma wéy wéy wéy juru góor comme loolu moo nekkoon laaj bi daf ma daf ma vraiment daf ma dimbali ci lu bëri ndax dafa jaar fenn te seetaanu ma donc dafa yàgg di ma xel di ma conseiller on a discuté je pense que ne amul lu ma mës a dund ci politique te waxuma ko te amul moom tam lu mu mës a dund te waxu ko donc nag loolu daf lay dimbale tu es un peu en avance mm-hmm. par rapport ak ñu bëri parce que da ngay xam ci li ngay dugg lan la mm-hmm. te comme man maag moom vraiment on partageait cette passion euh, ban je savais que j'allais faire de la politique bu ma nekkee xale bu ndaw laa xam ne damay politique yi parce que j'aimais ça en lui il m'a fait aimer ce rôle d'homme au service de sa communauté okay. ça je l'ai toujours que ne ça c'est une passion je vais me à être un homme politique mais qui sert son véritablement son peuple contrairement à ñi nga xam ne dañuy xëy politique da lañ ci opportunité mooy tax ñu di di ci dugg. moi je n'attends absolument rien de la politique xaaruma ci dara parce que tey <coughs> amoon leneen feneen ma gënoon yomb que may def nii cest li may def nii di engagé wu ci politique tey leneen a moo ko gënoon yomb ci man mais tu sais que ne fii la sa fii nga gisee sa bopp. fii ngay sentir sa bopp fii ngay xamee ne tu donnes un sens à ta vie. tu aimes ce que tu fais man la politique c'est une question de passion. dinañ ci ñëw dugguma ci pour. Mhm. dara loolu la maa dinañ ci ñëw par rapport ak sa carrière euh, mhm. politique boobu noonu ni nga koy euh, dundee mais après le bac. Mhm. parce que sa ndaw ba ni ngay amee bac mosoo génn Jurbel léegi bi nga amee bac alors. jubluwaay bi lan la woon ñëw Cheikh Anta. ñëw Cheikh Anta ñu bëri xamuñ ko nag mais man j'ai fait mes armes en sociologie de l'économie mën naa ne je suis un sociologue sociologie laa gën a jàng sax que planification ak ak ak économie. bien que sociologie de l'économie mooy suma spécialisation gës naa gëstu naa ci lu bëri ma ñëw Cheikh Anta une année et mhm. c'était très compliqué parce que boo jugee Diourbel ñëw Cheikh Anta Diop et puis nga tàmmoon vraiment Diourbel calme bi organisation bi nga ñëw fii gis conditions yi pour la première fois je me suis dit si je veux vraiment évoluer ak ni ma ko bëggee peut-être que génn day nekk une option pour la première fois ma xalaat génn mhm. Euh, ci laa amee chance euh, université Nancy 2 accepté ma ma dem def foofu mes études j'avais un grand frère qui est là-bas m'a aussi bien accueilli une communauté sénégalaise bu ma accueillir foofu loolu tam nekk na lu ma yombal ndimbal lu nga xam ne borom bi defal na ma ko ndax ñëw ma fa rek fekk fa naan dafay fay dama ñëw fekk fa ay nit yu ma yu ma tette jàppale ma dimbale ma donc fa laa jàngee am suma licence en sociologie ensuite dem intégrer l'INPL mm-hmm. donc polytechnique. l'INPL institut national polytechnique de la Lorraine. donc euh, ma dugg fa def fa suma spécialisation donc master tout ce qui est conduite de projet développement économique territorial ak ingénierie urbaine. Mhm. donc loolu laa gën a jàng loolu mooy suma. Mhm. vraiment suma suma domaine quoi. sa spécialité sama spécialité. Mhm. donc lépp luy planification économie territoire développement saa mooy suma corps. laa nga laa jàng ba pare ci. ma pare eh, yàlla dimbale ma nag parce que France compliqué woon na trop boo da ngay jàng ba pare ñu ne la takkal sa bagage dellu te man dama buggoon am expérience professionnelle ndax am ay diplôme baax na mais liggéey aussi c'était fa amoon solo yàlla nag dimbale ma euh, ma am liggéey def changement de statut ba nekk fa travailleur donc j'ai travaillé pour les euh, pour les communautés urbaines de Lyon benn moment j'étais responsable territorial foofu maa doon gérer des aires d'accueil des gens du voyage mu nekkoon liggéey bu am solo ma def un an pour des problèmes de racisme nga moom am na loo xam ne doo ko nangu. mais comment. des problèmes de racisme. oui parce que dañ ma recruter en tant que cadre. mais ki nga xam ne moo nekkoon suma responsable c'était un un vrai facho quoi. Ah, donc euh, et puis bi ñu koy recruter c'était il n'était pas là bi ñu may recruter man donc dama ñëw. conflit am te ñun kenn xamee wuñu vraiment nit ki di di di di sa kaw ko mhm. donc après un an ma ne leen man liggéey bi laa fi teg wuti beneen liggéey suñ borom tam dimbale ma am beneen liggéey à Paris donc chargé de mission logement pour SOS Habitat donc moo tax borom bi booy boo boo taxawee ci dëgg rek mu yombalal la mbir mhm. après contexte France ni ñu sonalee woon étranger yi ay la France tu l'aimes ou tu la waxu Sarkozy yooyu et sociologue bi ma nekkoon. xam condition d'étranger sama doom yi bu ñu ci juddoo ak contexte bi image bi ñu nar a def si ñoom ma ne France du fu samay doom war a màggee ma jël décision ne damay quitter la France comme la France ne m'aimait pas. moi je vais la quitter et j'ai quitté la France pour dem Canada. donc defar su may dossier Canada yi Canadien yi tam bi ñu gisee ne ah, c'est un polytechnicien jàng na mën na li muy def dañ lay jox nga dem nga ñëw ñu jox la résidence permanente mën ngi fi toog ba saa su la neexee donc bu ñu lay buntaxatal fii rek <laughs> am na ñeneen ñu la soxla fa donc àdduna li bon mooy nga nga ñàkk nga nga nga yaakaar ne yow bu dul ñii doo tekki <laughs> te li ma gën a neex mooy foofu nag laa amee Canada laa amee chance évoluer dans l'un des ki qui m'avait intéressé le plus c'était le milieu bancaire foofu nag laa defee vraiment huit ans de carrière dans le milieu de la finance donc sur le continent nord-américain ma liggéeyal pour de banques comme la Banque Laurentienne ak Banque nationale du Canada et ça m'a permis vraiment mën naa ne lu ma gën a neex ci liggéey yu ma mën a dem sa def yëpp ci loolu la bokk c'était un liggéey la boo xam ne da ngay da jàng la l'économie dans réalité bi dëgg dëgg dëgg ngay jàng tu es de l'économie tu finance des entreprises nord-américaines mm-hmm. bés bu ne nga jot demande bés bu ne nga jot ay états financiers yu bokk bés bu ne ngay analyser di structurer ay demandes di ko défendre nit ñi di ko accepter di ko refuser nga nekk ci loolu pendant sept huit ans daf lay former. da lay jox benn vraiment benn capacité. expérience boo xam ne nit dina jàng ba sonn du ko am ba noppi ce qui est beau en Amérique mooy quand tu veux bu fekkente ne métier bi daf la intéressé y a tout le temps des écoles ki te permettent nga dem jàng certifié wu. Mm. ay Moody's analytique Canadian Securities Institute ñoo lay certifier ba nga nekk un professionnel certifié de sa domaine. moo tax aussi àdduna li may wax jeunes mooy bu leen tayyi mukk ci jàng moo tax ma naan la sama ma force a toujours été je sais apprendre xam naa ne jàng moom dama ko dama ko dama jàng mën a jàng il foog nga nangoo jàng à tout moment ngay mën jàng mën jàng daf lay dimbale sa carrière day tax nga mën a évoluer mën a changer mën a adapter mën a évoluer ba noppi nangoo sonn euh, sonn moo gën jaaxle ki leen gën a nangu sonn mooy kii gën a ñàkk a jaaxle foo fekk ku jaaxle rek c'est parce que à un moment boo xam ne mënoon na sonn parce que daa bañoon sonn donc noonu la carrière bi demee euh, bi ma jógee Canada France ñëw Canada un an laa def Cheikh Bamba Dieye woo ma ma ñëw bi def fi un an dellu def carrière dans dans le milieu bancaire mm-hmm. ba ni ma ñibbisee ci réew mi euh, depuis quatre mois définitivement ma ñibbisi toog fii yor fi suma cabinet d'affaires euh, donc loolu daal mooy mooy jaar-jaar bi mën naa ne amul lu exceptionnel si ce n'est ay wéyjur yu ma sa jox ay principe ak i valeur ne na àdduna foog nga nangoo sonn ba noppi nangul jàng je pense que ni s'il y a deux choses qui ont déterminé qui ont été déterminantes suma évolution mm-hmm. mooy ñaari éléments yi mais justement ñibbisi bi parce que nga xëy ne léegi damay décider mm-hmm. dellu Sénégal mm-hmm. définitivement euh, lan moo sabab euh, li nu mel <laughs> particulièrement la passion pour la politique. En fait, j'avais du mal à vivre en France wala au Canada parce que je ne vivais pas la politique. politique gu dëkk yooyu intéressé wu ma la politique qui m'intéressait c'est la politique chez moi sama réew. et j'étais tout le temps connecté di xam li xew j'étais même plus <laughs> informé que ñu ne ci réew mi. Mm-hmm. par cette passion pour le développement de ce pays ce pays peut se développer c'est possible. boo demee ci neen dëkk yi xool ni ñu organiser xool ni ñu structurer da ngay xam ne ñun bës bu ñu organiser structurer dañuy développer et tu as cette passion cette envie de vouloir contribuer à développement réew c'est ça qui a fait que j'ai toujours voulu rentrer toujours voulu revenir ici toog ak sumay frères et mes sœurs discuter sur ce développement apporter ma contribution mais ce retour la a toujours été très difficile parce que ñibbisi waaw mais ne pas me perdre aussi c'est important mënuma ñibbisi dans n'importe quelle condition mënuma ñibbisi pour n'importe qui parce que bu ma ñibbisi woon dugg Benno Bokk Yaakaar. <laughs> mosoo fa dugg. <laughs> fa dugg. ce ne ce ne sont pas les. opportunités mosoo politique feneen. si FSDBJ man sama engagement politique c'est en 2008 la engagé wu politique moo tax Cheikh Bamba Dièye woo ma ne ma ñëwal nekk sama conseil technique 2008 laa commencé politique. fekk avant boobu dugg naa dans le monde associatif parce que justement xamoon naa ne comme tôt ou tard ci politique laay mujj mhm. euh, j'ai été étu président des étudiants travailleurs à sénégalais à Nancy j'ai été secrétaire yooyu yëpp dama ko doon def parce que je savais que tôt ou tard damay dugg politique mais il yaa a eu prise de contact déclic bi mu ngi am bi Ablaye Wade que que un homme que que que j'admire par sa dimension intellectuelle c'est un libéral social comme man nit ku am xam-xam mais 2007 bi mu commencé 2017 bi mu commencé def yenn yi dama ko commencé weddi. c'est à ça man dama ne kii il faut que ñu xeex ko. 2007 2017. 2017 boobu laa commencé xeex non plus plus plutôt sax 2000. 2007 2007 2008. voilà 2007 yooyu laa commencé vraiment li mu doon gérer réew mi c'était devenu inacceptable donc boobu laa jël. ànd ak Cheikh Bamba Dièye je pense huit ans neuf ans ci parti donc engagement politique bi du tey euh, bi may woo boobu fekk na maa ngi nekk euh, membre du FSDPJ nekk parmi ses cadres euh, mu ne ma ñëwal nekk conseil technique du gouvernement mais il une façon de faire par rapport à ces Sénégalais de l'extérieur la parce que Sénégal d'habitude boo nekkee l'extérieur mhm. bëgg benn prise de contact pour s'installer à l'intérieur du pays il est beaucoup plus facile. Mm-hmm. prise de contact bi doxee ci bokk.